mbokk yi dellu nañu di leen nuyu di leen euh, dalal jàmm ci euh, Feus Net ni ñu leen koy amalee lundi ak vendredi muy xibaar yi ñu leen jëlee ci site internet di leen ko baaxee ci euh, Sénégo kon dañuy tàmbalee ak Sénégo muy accident oto 4 x bi nga xam ni Serigne Mboup moo ko moom kon te ay journaliste nekkoon ci doon dem ca yoonu na ñaar ci ay journaliste am nañu gaañ gaañu metti ñeneen ñi gaañu gaañu yu oyof 4 x boobu nga xam ni Serigne Mboup moo ko moom chauffeur doon ko dawal. dafa jaxasoo ba mujj gi oto bi rek euh, saaraan def ay tono yu bëri mbir ma nga xewee foofu ca euh, Mbadakhoune euh, fi nga xam ne rek mooy ca diwaanu Guinguinéo te ci ay xibaar taskati xibaar yooyu bàyyeekoo ci TFM Dakar Actu Sen TV. ay Alfayda FM ak Saalum TV dañu doon dem ci xew-xew bi nga xam ni moom lañ doon amal foofu ca Mbadakhoune euh, te meeru euh, Guinguinéo doon ko organiser bu ñu jógee ci loolu leeral point net la ñuy dem ak subdivision bu douane euh, port autonome bu Dakar. te tegaat nañu loxo encore temps yëpp rek jàppoon nañ fi ay nit yoo xam ni dañ doon luubal ay oto ñu jóge ca bitim réew di ko indiwaat fii ci Sénégal am na ñeneen ñuñ jàpp muy juróomi oto yoo xam ni oto yu euh, bakkane la te it am na ay nit yoo xamante ni ñoo doon indi oto yooyu fii ci Sénégal ñoom it teg nañ leen loxo te mbir mi nga doon xewee ci diggante Dakar ak Bamako muy njaayum oto boobu ñu ko fa doon dugal di ko sellal euh, te it am na yeneen ñaari oto yoo xam dañ ko doon wàccee fële euh, ca mbaaw ngir daal di ko mën a seeyal waaye mujjantal gi ñi nga xam ñoom ñooy waa douane teg nañu loxo ci lu ni mel ak it nit yi ko doon jaay bokk na ci ay Range ak itam mille 3008 yooyu yëpp teg nañ ko loxo. Euh, te euh, dañ ko doon yóbbu foofu ca diwaanu Mali comme ni ñu ko waxee te talaata bii ñu génn maanaam bërki démb rek douanier yi nga tegoon nañu loxo lu toll si ñetti oto yu bakkane yoo xamante ni dafa jóge woon ca port bu Havre nekk réew France ñoon ni ko fii ci Ndakaaru ci ñaar fukki fa ak ñaar weeru septembre bii ñu génn kon daal waa port jamono ji daal nga seen yaram tàng na ci jàpp ay mbirum drogue ak yi itamit ay oto yi nga xam ni dañu koy lewal di ko indi fii ci biir réew mi seneweb point com la ñuy dem ak consulat bu euh, France fii ci Sénégal ñu jàpp ne rek dafa am ñu njaaj yoo xam dañu koy def dina arnaquer sénégalais ci wàllu dépôt de visa da ngay déposer visa te duñu la fay xaalis bi nga xam ne moom nga joxe woon ngir euh, déposer visa mu toll si quarante mille ko ko xamle mooy doomu français bi te nekk fii ci biir Sénégal di wës turu Fabrice Dangani moom da doon jano taskatu xibaar yi démb ci alxames nee na du dëgg du yoon li mu seetlu mat na ay at yu bëree bëri ñii di sénégalais dañuy dem ci ambassade bu France bu nekk fii ngir mën a déposer euh, lii di euh, visa pour am ko ngir dem foofu ci réew France te ay jafe-jafe yu métti métti la ñuy daj ngir am euh, seen visa boobu waaye waa ambassade France donte sax di jot seen i 40 000 francs muy frais de dépôt bi waaye duñ leen may visa booy xool ñu ci bëri duñu ko am te it duñ leen rembourser seen quarante millions quarante mille francs yooy dañu gis lu ni mel sàcc la ki kaw wax moom mooy ah, Fabrice nii nekk doom France nekk fii ci biir Sénégal te it mu jàpp ne ñii di français yi mën nañ def lu toll si quatre-vingt-dix jours maanaam juróom-ñeent fukki fan fii ci biir Sénégal te it sénégalais mënu ko def ca biir réewam ah, lu ni mel neen daal du dëgg du yoon te fi mu nekk nii dina wéyal xeex bi fii rek lu ni mel ah, soppeekul ca seen. wet euh, kon euh, Patrice Dangani moo doon xamle lu ni mel te jàpp na ne Sénégal daal fii la gis ne euh, ci réewu CEDEAO maanaam nit ñu ñuul ñi ñu bokk Afrique sowu jant ñoom daal ñooy gën a am ay jafe-jafe ngir am visa pour dem foofu sa France réew mi point comme ñu waxaat gannaaw moom mi njiitu mi Macky Sall bi mu bàyyee xalifa Sall bi ñu jugee ci inauguration Masalikul naan nee nañ sax euh, kii di xalif général Mouride bi Serigne Mountakha Mbacké jot na waxtaan ak Macky Sall lu yàgg ak ki nga xam ne moom mooy ki fi nekkoon président di ay Abdoulaye Wade ci inauguration Masalikul Jinaan ñaari dossier lañ tegoon ci table doon si waxtaan muy dossier wu Khalifa Sall ñu daal di koy bàyyi lu nu mel antu na ak Karim Wade bi nga xam nii dañ ko dàq génne ko réew mi mu exilé wu foofu ca Qatar mu mel ni kii euh, moom kii di euh, Macky Sall pare na pour jéggal Karim Wade mu dellu fii si biir réew mi te ay xibaar jàpp nañ ne Karim Wade fi mu nekk mi ngi defar ay bagaasam ngir ñibbisi fii ci biir Sénégal donte sax euh, doonoon nañ ko wax lu bëree bëri dana ñibbisi dana ñibbisi waaye lépp rek daan woon antu kon fi mu nekk nee nañu Macky Sall déggoon naa Karim Wade ak Abdoulaye Wade ngir Karim ñibbisi fii ci biir réew mi te ay xibaar yi nga xam ne taataan nañ ko ci réew mi ba tey Macky Sall mi ngi def lépp ngir Karim Wade bu ñëwee mu jox ko poste vice président bu Sénégal maanaam topp ci moom ak ay responsabilités yu bëri mu mel ni ki daal ay surprise yu bëri jamono jii dana am fii ci biir réew te ñu bëri danañu yéemu ci doxalinu euh, président Macky Sall ak kii di Karim Wade. ñu delluwaat ci point comme ñu wax ci affaire Guin Thieuss Thione Seck ak Waly Balago Seck ndaxte Guin Thieuss mi dafa porté woon plant kii di Pape Pape Paye Waly di Thione Seck ak moomile Waly Seck ne ay luubal yoo xam ne dañ koy def muy ay accusation malfait association de malfaiteurs trafic escroquerie ak abus de confiance ak complicité euh, de ses maanaam lépp loo xam ne dañ ko sekkoon ci wàll benn concert bu yoroon am foofu ca Canada te mbir yi antuwul gin cës nee na daal kii di Waly Balago Seck ak Pape Andy Thione dañ ko teg dil euh, boo moytu laal ki nga xamante ni moom mooy euh, àttekat bi dana leen woowaat fii ak euh, jëmmi jamono euh, muy euh, juge d'instruction huitième cabinet Mamadou Seck moom daal mi ngi xaar ngir woo ñett ñooñ daal ñu mën a jàkkaarloo ci mbir moom nga xam ni moo am seen diggante VIP people la ñuy jeexalee ak lu toll si fukk ak juróom-ñaari ay takk der di di 17 ay militaire bokk na ci Euh, ñi nga xamante ni euh, ñoom dañ leen radié ci vingt cinq militaires yoo xam ni ñoom dañu réussiroon euh, ci concours bu douane ci atum deux mille dix huit ñoom nee nañu daal gannaaw bi nga xamante ni dañ leen génne ci corps militaire bi nee nañu boo moytu danañu xaru maanaam faat seen bopp fii rek kii di général des armées muy général bi Cheikh Gueye dellusiwul waat ginnaaw ci radié boobu ñu leen def tey dañu jàpp ni daal ñoom dafa am beneen yoon bi ñu jaaroon ngir am concours douane te teguwul yoon nee lu ñu mel dara du ci dëgg. ndaxte seen dossier yi euh, ñii di hiérarchie bi ñoo leen ko jox ñu bokk ci concours bi ba jàll nee nañu daal bu ñu leen delloo waatul ci biir koor boobu noonu ci lañu nekkoon dinañu euh, xaru maanaam yemale euh, seen dund fii fii ak rek kii di général bi delluwul ginnaaw ci lu ni mel kon mbokk yi loolu moo nekkoon fës net yenn xibaar yi ñu leen doon jottali ñu joxante dig daje lundi incha allah rabbi jaa ngeen jëf